ci seen portrait à la sénégalaise bu tey bi ñuy waxtaane kenn koo xam ne dundam daanaka lépp alxuraanul karim la ko jagleel kenn ci doomu mawlaana cheikh al islaam El Hadji Ibrahima Niass ñu gën koo xam ci Zeyda Mariama Niass mi ngi gane si àdduna 1932 Koosi benn dëkk bu sorewul lool Kaolack waaye juróom wu góor Baay Niass teel koo dugal alxuraan ba mu amee juróomi at dénk ko cheikh Mouhamadul Wuld Rabbani di jàngalekatu alxuraan bu ñu ràññee ca Mauritanie cheikh bi jàngal ñu bëri ci doomu Baay mooy dafa am kóllëre gu mu fasanteeg alxuraan ba muy ndaw bëgg gi mu bëgg alxuraan teel a yéem ñëpp ba ñu ngi nettali ne bi mu nekkee xale daan jàng alxuraan danaan wax wustaasam ne ko na ko bàyyi mu jàngal ñi nga xam ne ñooy ay xaritam ndax lu ñu ko mokkaluñu bàyyi ñas alaaj ibrahim ñas bëgg ko daan ko may ay kado yu dul jeex ba mu wegoo alxuraan ba mokkal ko la ko bàyyi jël daan ànd ak moom ci wayaas yi mu daan def ci doomu Baye Niass bu nekk jeune ñu may ko El Umar Kane ci Dakar neuf avenue Malick Sy xam nga mënoon naa xalaat mbégam Dakar nekk leaderu famille ñuy dem ci xew yi wala muy laaj addiya déedéet dafa soppi may rek néegam ba te yaatuwutoo noonu daf ko soppi daara man daal damay ñaan pour que yàlla yàggal ko fi lool pour que nit ñi di mun di roy ci moom moom itam li muy joxe وفي جنة الفردوس طاب مقامها وأجرنا فيها وأخلفنا خيرا صلاة على المختار بدا ومختما على والأصحاب دائما